bu dee abu moom ci suba bi 9h26 maa ngi koy wax dugal na chapeau ma gis mu dugal chapeau rek may doog a yeew noonu ñëw bureau ma woo ko téléphone di ko tooñ nankaan gëm service yeewaguñu sax nga ñuy balancer ay chapeau mu ne ma bàyyi ma man damay liggéey affaire yooyu noonu mu ne ko yow moom job rek ngay def ñuy tooñante daal fàtte naa sax luñ mujjee wax bi ma wàccee si suuf noonu toog rek brusquement si la ma ko càlla wax après ñu génn laajte ci loolu nañu gaañu nañ ñoom ñëpp mais gëw ko ba tey après fekk sama benn concert lii sax mu ne moo leen woo wax leen ko ma ne loolu du dëgg ba tey man jàpp naa ne dañuy xëm wala dara affaire yooyu noonu après bi ma gisee oto bi nag si laa xam ne fii nit mënu fee dund rek si lañ commencé yuuxu ma yuuxu naan yoro sama xarit bi affaire yooyu noonu bureau ba góor jigéen ñëpp ñëpp directeur gardien ñëpp di jooy man daal lañ ko dundee mu nekk vraiment lu metti trop trop. seen taxawaay liggéey bi foofu ci groupe Leral lan ñu gënoon a am pas-pas si liggéey bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu doon soññ. yoro day ànd ak yow mu ne moom mooy journaliste abu du la bàyyi nga nooy abu du chapeau mu bëgg chapeau laa ko tuddee du zoom lépp la ñuy xëccoo ak moom du la bàyyi nga nooy abu abu dafa nekk koo xamante ne bu muy dem sax caala mu ngi koy wax suñu kii ne ko abu bu mu dem ndax abu bu demee journal bi du dem affaire yooyu mu ne mu ngi dem waaye à distance dina liggéey te loolu fësal na ko ba niñ leen ko waxee ni muy demee mu ngi dugal chapeau mag lépp mu ngi koy def mhm. sama position lenn la si ni ko ñëpp waxee laa koy waxee parce que loolu tam c'est tout à fait normal bu ñu nekkee ñoo xamante ne dañ doon dem ànd ak président loolu dal leen fa lu yoon la ñu def ko bu nekkee ñoo xamante ne aussi dañu jógoon ngir ut information askan bi jàppale leen ku si nekk ba ngay dem bàyyi nga soxla bàyyi nga famille Ousmane doomam dafa feebar ñu war ko si jàppale mu war a def opération papaam bi bu ñëwee aussi mu ngi ñeneen yaayam dafa feebar loolu yëpp ñu war leen see jàppale euh, mu nekk soutien boo xamante ne war ñëpp ku ci nekk ni moo la ko waxee muy yoro yoro moo desoon taawu yaayam Ousmane soutien de famille la abu ñu ko ñoom la jëndal mu ne ko yoro bu mujj gis nga seen waa mu ne ma sama yaay dama ko woo mu ñëw si garage bi ma korte ko affaire yooyu li ma yoroon yëpp moom laa ko jox mu nekk journée bi mu àndee nag Zahra Iyane Thiam mu nekk lu triste vraiment. tey ñoom duñu dem ndax ay xale lañ yoo xam ne tey toute la presse dafa am daf dañu war a am fierté ci ñoom te lii ñuy wax dañ ko dund ak ñoom xam ko mu nekk ñoo xam ne def nañu seen liggéey ak négation mu nekk ñoo xam ne def nañu seen liggéey ak générosité mu nekk ñoo xam ne def nañu seen liggéey ak professionnalisme mais surtout surtout mu nekk xale yoo xam ne def nañu seen liggéey ak engagement engagement moo tax tey ñu ne dañuy jiitu ji joxe l'information joxe la bonne information kon tey ñoom ils sont des modèles pour tout le peuple sénégalais ay martyrs lañ ay héros lañ ñi ngi jaal seen famille di leen wax ne gannaaw bi li ñu ñaanee sunu borom may leen xolu muñ nañu fier ci seeni njaboot